billahi min asheytaan arajim la hawla wala quwata illa billah alil azim bismillahi rahmani rahim asbuna allahu wa nimal wakilu nimal mawla wa nimal nasir asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak ci biti réew foofu waay mënti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nu nu yendu ci jàmm te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yépp nag di ñaanal kilifay aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence la président Macky Sall ba ci ki gën a suufe kenn ku ci nekk lépp lu ñu la jox pour defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow mi nu ko joxit nga jàpp ci ba lépp sotti Sénégal jëm ca kanam e, di ñaan feebar bi xew ci àdduna bi it yal na ko yàlla daq ci réew yi jullit yépp dàq ko ci àdduna bi yépp waaye surtout nag di ñaanal sunu bokki sénégalais yi nga xam ni continent boo dem ci àdduna bi fekk leen fa te teranga tax leen a jóg yàlla na leen yàlla musal te ubbil leen bunti xéewal ba ngeen ñibbisi nag ñu toog toog tabax sunu réew tey nag seen émission penc réew mi dafa ñëw ci penc mu mag muy ndukumaan Kaffrine ci daara joo xam ne dëgg-dëgg wër naa daara yu baree baree bari nag ci Sénégal waaye tey laa mas a gis daara ju moderne nii euh, xale yi sax dama leen a ñee man ndax dama daan taxan di jàng alxuraan fu ñu masaan di toog doom bi sax moo nuy taq ba mujj dañuy weex tey ma gis ab saal ñu taali climatiseur ak i ventilateur xale yi am lal yoo xay <laughs> dëgg-dëgg ñun bi ñuy jàng alxuraan defe naan lal yooyu sax xewagul muy loo xamante ni dëgg-dëgg teraanga ji ñu teral alxuraan fii maa ngi ñaan sunu tànk yi yal na ko yàlla def lépp di yiw bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinañ waxtaan nag ak ñu xam cosaan li ak ñi nga xam ni ñoo yor njàng mi ak ñi nga xam ni ñooy xariti as ndaw mi nga xam ni ginnaaw yàlla lii lépp ci sabab ci moom la jóge ah, di koo xamante nit foo ko séen alxuraan moom du ngeen waxtaan mukk juróomi minute te tuddul alxuraan alxuraan képp lay nooyee kon nag loolu lañ leen bëgg woon tey jii ci seen émission penc réew mi bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir mbokk yi ñu leen di nuyu nuyoo bi gën a rafet ci julli muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu fas kee def fi benn waxtaan boo xam ne bu amal jullit yi njëriñ lay doon bu soobee yàlla bisu tey bi yaakaar naa mooy bisu ñaareel ci weeru gàmm muy weeru màgg ci jullit yi di weer woo xam ne gën ji mbindeef ci la gane àdduna ñu ñaan yàlla taas ñu ci barkeem lépp luñ fi waxtaan it yàlla na daje ngërmandeem ak ngërmandeel borom bi loolu benn la ci beneen biñ ciy teg mooy di sant di ñaanal suñ kilifa suñ baay suñ nijaay suñ waajur ñu ko alaaj jëmeelu ndaw nga xam ne moom lañ tuddee barab bii nga xam ne guddi ak bëccëg kalam ak ay ñaanam du denc daara ji ñu ngi ko ñaanal fa mu gudd mu yàgg ñuy gunge xel dal ci daara ji nga xam ne suñ demee ndakaaroog yëpp suñ xel dana dal te itam ñu demee ba ci kanam lu tax ñu war koo sant danañ ko gën a xamaat ndax lii lépp mooma gannaaw si loolu ñu ngi sant suñu rakk suñ mbokk taalibe suñ nawle di alaaji wilaan nga xam ne ñun ak moom ñoo bokkoon jaar ko ki xëy na ñoo ko fa njëkk a jaar waaye gis nañ ci moom li ñu doy mu dajal dogal yàlla ñu yëkkati liggéey bu rëy bi dénk ko ko ba tax suñu wanee gannaaw moom itam suñ xel mën a dal danañ ko di ko fàttali te gën ñoo xam nag li mu def lool waaye nag dana déglu boo ko waxee dana déglu boo ko waxee la lu baax dana ko jël appliqué ko moo tax ñu ngi ko ñaanal yàlla sàmm ko liggéey bii ni ko déparé ñu ngi koy gërëm waaye toujours dañ koy wax ne ko train bi ñëw ci heure kenn taxul ñuy wax boo waroon a ñëw te ñëwul boobu lañuy wax wala bi ñu bëgg bu ñëw moo tax ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal réussit ñun kenn lañ ci ki nga xam ne moom la yàlla jaaral jaarale lii mu taxawal ko yonent bi dafa wax ne nimal maalu saalih fee di rajulun saalih alal mbaax na bu fekkee dafa nekk ci loxol nit ku baax te yaakaar naa investissement yi ku ko def nga xam ni jaami yàlla yi ñoo tax ak jullit yi dañ ko ñaanal yàlla nangul ko as na kenn lañ ci moom ñun nga xam dañoo daje woon ci barabu góor gu baax gu am barke nga xam ne da doon jàngale alxuraan ngir yàlla ak yeneent ba muy alaaji amat loo yaakaar naa as am na lu bëri bëri bëri lu roy ci moom daan nañu wax ne suma daara ji ku fi nekk ni nga fi war a nekkee boo fi bàyyeekoo ëllëg doo nekk mbaamu borom xam-xam doo nekk mbaamu borom xaalis ndax lu ci nekk yàlla dana la ci may loo mën a mu muñee daan nañu wax ni ku fi bàyyeekoo ëllëg li gënal li li ko gënal moom nga xam ne moom ngay jëfee ji ëllëg mooy jàngale yaakaar naa jàngale nag as moom mu ngi yëngatu ci côté boobu gannaaw bu mu yëngatoo ci côté commerce. fàttewut lañ ko digaloon kon te li tax nga xam ne lim booy def lu baax ngir doomu aadama yi ñépp la war a ñaanal yàlla dëgëral sa taxawaay te yokk sa mën-mën bàyyi la sa xel ñu ngi ko koy ñaanal directeur bi tey boo demoon buróom xool euh, carte naissance yi fa nekk ñi ci sant sant bi aas sant ñeneen ñi ci sant boobu moo ko ëpp kon nag kat lekkookaay ci mujjug jamono li sëñ Amar Saxir Lo ñaanoon ni ñaan na daaraam ji nekk kat lekkookaay ci mujjug jamono waaye daaray aas ji ñaan na mu nekk kat ci muttu mujjug jamono te fierté la pour ñun saalum saalum yëpp ndax luñ daan jàng alxuraan fii lañ daan bay ko dox daanaka trois cent kilomètres dem kokki yàlla def na nag as yàlla bokkoon ci ñi nga xam ne nijaayam jëloon na ko jàpp ko ci loxo yóbbu ko kokki mu góorgóorlu fa topp ndigal ba am lu mu fa jëlee tibb fa ab safara ñëw taal fi benn taal kon nag fi mu ne obligation la ñu am ñun ñëpp ci toppatoo taal bi ba du fayati mu nekk xetle ko kaay ci mujjug jamono comme ni ko sëñ ba doon ñaane ni waxoon naa ne alaaj jamilu ndaw mooy suñu wayjur ñu ngi koy sant cant goo xam ne laa ton du wala ton sa xam ne fu mu tàmbale waa xamuñ fu mu yem ndax nit képp koo gis mu jaar ci yoon dafa fekk ay wayjur yu jaar ci yoon ñu jël ko jaarale ko ci yoon as na yàlla may na ko sens boobu Alaaji Jamil Ndaw ko jëloon yóbbu ko kokki mu topp ndigalam toog fa topp ndigalu sëñ ba ba am lu ko fa yàlla jox lépp lu mu am yal na ko yàlla yokk nii Wilane moom lañ dénk daara ji te wóolu ko lool ndénkaane nag dafa sensible dafa metti ndax buñ la dénkee dara nga bëgg mu yokk bëgg mu baax doo tala nelaw yow waaye man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa aleyha ku def lu baax defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal biñ ko dénkee daara ji ba léegi yàlla bu bu bu bu cat am ci moom ki waaye niñ gis muy doxee daal noonu gërëmagum nañ ko ñu ngi koy sant yow it alaaj taal say activité ci lu baax lañ la gis nga yëngatu moo tax boo ñu soxlaa ci émission fii ak fudut fii luñ mënoon jàpp dañ ko bàyyi ñëw wuy si la ndax histoire ngay fàttali inna sikra transforme muminin fàttali histoire dana joxe jom ci ndaw yi dana tax itam koo xam ne danga doon na ay jàmbaar doo yaafus loolu daal moom lañu amaale woon ci lu ñuy wax xam naa ñu jox kàddu gi Babacar sàmb kon mu defal ñu historique lan moo tax as ndaw baax bëgg lu baax daf ko fekk ndax asaar amut ci àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu auzu billahi mina seytaani rajim laa hawla wala quwata illa billahi aliyil azim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim eh, bokki julli di ñu ngi sant yàlla bu baax di julli seydina muhammad wa sallam di sant suñuy wayjur di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ bokkat jataay bi ki nga xam ne moom moo jóg pour jël jataay bi di suñu mbokk alaaji taal ngool ngool alaaji taal ngool ngool bii mooy su ñaareelu jataay maag moom kon loolu ñu ko ci sant di ci sant yàlla e di ci sant ki nga xam ne nag lu jën njaaga te mooy njaag nga xam ne moo waral lii ah di sant ñi nga xam ne itam ba tey ñu bokk ak ñoom jotaay bi muy suma tooma Babacar Dramé ñu ko wax Mbaye Dramé mu wëlale ci as di xaritam di léppam eh, ki nga xam ne itam tey eh, moo waral place bii bi ko yàlla yëkkatee teg ko ci loxol aas mu yëkkati ko teg ko ci loxoom ci yaakaar jum am ci moom muy alaaji wiraan ñu koy wax ustaas mu dëkk dëkk bu ñuy wax kër Malick Ndiaye moom kóolëreem ak aas mu nga fasantoo ca màkka ndax dañ faa daje euh, muy aj wala muy umra wala mu dem fa liggéeyloo mu rafet lool ñuy waxtaan ba mu wax ko ne ah, yow day su ma sañoon day ne comme Sénégal nga dëkk bu ma ñibbee nga ñëw Kaffrine ñu jaamu fa yàlla ñu bokk fa jaamu yàlla mu ne ko man Kaffrine laa dëkk mu ne ko foo dëkk ci Kaffrine mu ne ko dëkk bu ñu wax kër Malick Ndiaye mu ne ko ah su ma sañoon de bu ñu bu bu ko yàlla dogalee ñu dem Kaffrine jaamu fa yàlla mel na ni nag yàlla tàmbali na loolu yàlla na ko yàlla yeggal ba jox def ci lu koy si njort eh, mu mel ni ci daara ji lañ bëgg a waxtaan ak borom daara ji mu mel ni ndeysaan comme ça liñ may li ma bëgg a waxtaanee mooy mbaax lu ñuy donn la mbon dañ koy sañ dërëm bi kum tax a baax bi nga baaxee yàggul dërëm bi yàggu fi tubaab bi rekk ko fi te loo loo loo loo mbaax goo mën a am wala jàng woo mën a am ba am loo am ku waxul laa ilaha illallah waxut asadu an laa ilaha ëppale na la ko te te gëmul yàlla kon affaire bi du du dërëm mbaax la ak jom ak juddu ak ngor ndax suma papa daf ma wax ne ma ñaari saddit képp ku la ko ëppale ku la ku la gën daf la ko gën a dëgërle muy ngor ak jom soo amee ngor lépp lu la nit lebal ci lu baax danga nga fas yéene ëppale ko walla nga raw ko boo amee jom nag da ngay jomb jomb nag mooy jomb ndax booy ragal nit boo ko gisatul loo bëgg a def def ko booy rus nit boo ko gisatul loo bëgg a def def ko waaye boo jombee nag boo soree jomb boo wéetee jomb boo jegee jomb jomb jomb yooyu nag mooy jomb ñu diw dafa am jomb as nag yàlla def na donn na mbaax waaye am na ngor am na jom te exemple bi ma lay wax maam maam Mariama Ndaw moo jur aji faatu mari ndaw muy moo jur alaaji jamilu ndaw muy nijaayam muy muy nijaayam ci li kii wax ne moo ngëboon ci loxoom yóbbu ko daara moom maa mariama moo daan wax mu ne sëtu wàlliyu bu bu fatloo kenn du ko jot waaye bu yaafu seen ak ca gannaaw gannaaw lay ne loola moom la tax mu wax ko xam na ko léegi nag euh, li tax ma ne la mbaax dañ koy donn mbon dañ koy sañ ñii fa ñu gàddaayee ñoom ndaw kundaay dëkk bu ñuy wax kartaala ca diggante xaay ak ñoore lam di julbe bañ fa bàyyi ñu ñëw dëkk bu ñuy wax rat demba fóoru boo fa ñëw dëkk bu ñuy wax debox debox boo fa ñëw dëkk bu ñuy wax peej peej boo fa dëkk ñëw dëkk bu ñuy wax Mandera bañ ba fa nag lañ sañc lañ ñëw sañc naa Mandiru bañ sañcee naa Mandiru nag yàlla dogal na ñu teel a dugg ci islaam lañ seen diina seen sëriñ nangu ba seen dëkk ba xare du fa ñëw feebar yomb fa ñu dund fa juróom-ñaar fukki at ki nga xam ne moo doon seen kilifa nekk seen way jur làqu génn àdduna ñu koy wax waali mbiri mbàkke ba mu fàddoo nag njaboot gi toog waxtaan dellu toog waxtaan ne ñun de suñ dëkk bi comme am na ñaan gu nangu be xare du fi ñëw te réew mi yëpp xare baa xare yaa ngi fi tàkk bal yaa ngi tàkk te ñun suñ dëkk bi xare du fi ñëw léegi tee ñu koo tas dem seeti fitna ndax fitna soo ko soo ko dundut mën ngaa génn tas ak moom te bu boobaa day jafe ci yow bañ waxtaanee ci loolu ñu toog ab diir defuñu ko am ñu tëdd ca tëdd ba guddi ñu ànd dem suul teen ba bañ suulee teen ba ku xëy jël sa bagaan rooti fekk teen bi sakk ñu ne nag comme dañ waroon a tas dëkk bi de te naanu bi sakk na kon dëkk bi tas na ndax dëkk boo amatu naanu tas na fekk waali mbiri mbàkke mii seen way jur am na taawuj waali njawañ waali bummi waali yaate waali joxale waali sikke waali ak bàmme waali ak kumba ndaw kumba ndaw ne leen suma ndaalaang fi dëkk ba di ca naan ren ba déwén ndaala jeexut ñu suuloon teen ba dem toj ndaala ndox ma jeex ñu ne dëkk bi tas na bi ñu bi ñu tas bi ñuy tasaaroo nag njawañ waali moo dem jolof moo sanc xattaale ak ngeeñeen moo mii ñi jolof-jolof yi sant ndaw bu ñu waalee ak yaate ñu nga fuuta am na fa tukulóor yi làkk sant ndaw moo leen meññi sikke waale ak bàmme waale ak kumba ndaw ñu nga bund taaguñ waale nag moo àndoon ak dëkkandoor ya ñëw ndukkumaan moom bi mu ñëwee mu ngi fekk barsaalum bu ñuy wax la me ngi ji leen njaay moo boo moo mu nekk ka woon bar te li ñuy wax góornóor moo fa nekk bar ba mu ñëwee mu ngi dal fii ci euh, euh, boo boo jëmee euh, jànke bala ngaa yegg boo rombee jànke dëkk bu ñuy wax del bi tey lañ koy wax del bi waaye dal ba foofu la daloon bi mu wàccee ba ba agsi foofu fi la dal moo ñi mu àndatoon ne nag dafay dem nag seeti barsaalum nuyu ko waxtaan ak moom wax ko li ko tax a ñëw ci réew mi ba xam lan lan la cee jëlee bi mu ñëwee nag mu dem bar euh, kawoon nuyu barsaalum wax ko li muy dox mu ne ko borom mboola nga mu ne ko lool mu ne ko man de damaa dëkk si ci réew mi te bëgg ku ma may ma dëkk te yaay borom réew mi te bëggumaa mu ne ko waaw léegi de euh, ndax borom mboola nga mu ne ko lool mu ne ko léegi de dafa am ñeenti buur yoo xam ne maa leen fal te sama diggante ñoom neexatul soo ma defalee pexe ba ma moone leen wala ñu déggoog man daal ñu dem ba fa nga bëgg mu may la nga dëkk mu ne ko ban ban la mu ne ko bar ngay bar jilóor bar njooñik fara rëpp mu ne ko waa baax na fekk bar saalum tegal na ko ca ne ku ma defalu dara duma la mën a defal dara man mu ne ko baax na mu ñëw ci wàññeeku ñëw ci dal bi ànd ak ay ñay xareem ñu dem rey ñaari buur yi siif alal jéeg jigéen ñi jë ñëw jébal ko bar saalum ne ko ana ñaar ñi ci des mu ne ko comme ñeent lañu woon rey nga ñaar ñi ñi ci des danañ nangu nañ dem ba fa nga bëgg ma may la nga dëkk bi ñu àndee nag di ñëw ba booy jub Kaffrine fii dëkk bu ñu naan kebbe guy fi la bar saalum taxaw ne ko li ma bëgg fii la dalee jublu penku euh, taagu jwaali bar saalum taxaw jublu penku yëkkati ñaari loxo yi bëgg koy wax li nga li ko dalee fii ba fa nga bëgg jëlal may naa la ko balaa ba mu yëkkatee ñaari loxo yi balaa wax mu ngi ànd ak dagam bu xereñ mu wàcce loxo ndeyjoor bi ndax boobu penku la jublu mu wàcce loxo ndeyjoor bi ne ko gàndee su agsee fajal la gàcce soo koy may boo ko may luyam bés mën naa ñëw mu metti ci yow mu wàcce benn loxo bi mu yëkkati benn bi moo waral wàll gii di ndukumaan gii di pakala ak màndaax su yëkkati ñaari loxo yëpp ndukumaan lay doon bi taalut waal yi ñëwee nag ba ba ji ba ba xam ne am na droit pour dëkk mu booba boo de boo jotee jëlee yoonu buleel bi boo demee ba ci grande mosquée bi am na benn soto bu fa newoon ah, soxna suñ daan wax junj ba mbow moo fa nekkoon dëx fa ay ndaaxam mbaar fa di fa suub bi mu ñëwee nag gis secret dëkk bi xam ne pencam foofu la ko bëgg laxas mu ñaan soxna si nuyu ko mu fay ko mu ñaan waxtaan ak moom ne ko man dañ maa may place bi te fii laa bëgg def penc te fekk naa la fi ma bëggoon nga seet fu la neex ma toxalal la fa sa mbaari ak sa mbaandi cuubu yi defal la ko fa te nga baxee ma palaas bi soxna si na ko bismillah mu defal ko loolu mu laxas soto ga penc soto ga ba nim daanu soxna turu soxna si jotu jogu ca soto junju ba rek lañ koy wax bi mu bi mu laxasee soto soto gi nag ba commencé dal ba commencé mbaar benn sëriñ jaar fa e bàyyi ko penku jëm kawoon ca barsaalum bi mu ñëwee nag mu noppalu fi bi waxtu julli jotee mu làkk soose dongo yi ne leen kaafiriñ basoo abe sali kaafiriñ boobu ci lañ tudd kafriñ mooy kaafiriñ bi ñu bi moom barsa moom sa sëriñ boobu nag bi mu demee kawoon nag ba ñaanal barsaalum balaa wàññeeku tàggoog moom nag la ko wax ne ko tuddee ma sa réew mi dana barke booba saalum tudd saalum de mbéy la tudd mu ne ko tuddee ma réew mi dana barke sëriñ ba mu nga tuddoon saalum suwaare moom lañ tuddee saalum barke boobu nag moom dëggu gi moo lay wan tey li li feeñ fii tey bi taagut waali sancee nag ñu ne du ko man bële a ngi sanc waaye du ko man du ko man boobu moo indi ndukkumaan du ko man du ko du ko man mooy ndukkumaan tey xam nga wax day bar ba réer kàddu day bar ba réer bële ba ngi sanc waaye du ko man du ko man boobu nag mooy ndukkumaan tey moom nag moo taawloo sandeene moom moom taaguj waali teg waali teg jaagoon sandeene moomu nag moom moo taawloo bëlëb gal mañ sa njànq bëlëb gal mañ sa njànq nag ku bëri woon ay taaw la moom bëlëb gal mañ sa njànq moomu moom moo jël moom moom yàlla dafa dogal mu amoon ay nettu soxna bi mu amoon nattu soxna nag yàlla dogal sama ma maam kor mbañe sàmb moom la dëkkatoon yàlla dogal ñu toog booba mag ñi jamono bi neexul ndax wax nga net nett li nga léegi sa mbiri daara ni woon ak tey yàlla dogal nag booba mag ñi dañ daan toog duñ am luñ lekk mu dëkk ak sama maam nag benn bés sama maam tàggu na ko tàggu ko ne ko damay toxu mu ne ko foo bëgg a jëm mun ne ko damay seeti fu dugub ne mu a ko toogal ma la lu ma lekk nga lekk ci mu yor ko yor ko ba boole kook soxna am ne ko jamono yooyu etti rek àndal ak moom soo soo soo demee etti ettil ko tey man ni ma aas ndew def nii indi ma kafrin dëkkal dëkkoo ma dëkkal ma fi yor sama lépp loolu ci dafa dafay lu yàgg loolu doona la te dañu wax ne doona ku ko yokkul rek yaa ko wàññi mu dëkkoo ko ñuy dox nag di dox ba biñ demee di ànd ba dugub ji wàññeeku soxna si eh, maam kor mbañe si def ju koy mbayen mbayen walla daal bu demee moom etti ñaari njël de bu ñëwee denc benn bi kee moom etti benn biñ demee nag ba dugub ji jeex rek ñu xëy na ko dugub ji jeex na mu ne leen ah yéen mënu leen moo a wax balaa gaaw a jeex ndax ngeen muñ ba mu jeex ngeen soog ma koy wax léegi de dana dugub dana am de waaye xiif dana am ndax balaa may wuti bay am bay indi xiif dana fi am léegi nag bi muy waañ nag soxna see moom su xëyee rek xooj dugub ji lim dencoon mu dindi ci xooj ba guddi mu gajaf mu riij ko defal ay ay xaleem kële ñële ñoom ne tocc rek waaye ku lekku doo nelaw bi sama ma bi sama kër maam yi déggee affaire yooyu nag mu xëy nuyu bëlëm ne ko kuute ngi jub sa kët mu ne ko déedéet mu ne ko kuuta ngi jub sa kët mu ne ko wallaay su fekkee kuuta ngi jub sama kët su ma suna si su ma toolu suna bi yàlla na soppeeku sàpp mu ne ko def nga mu ne ko lu xew mu ne ko ñàmbaleeg ndaw kundaa duñ géñ te yow géñ nga te sa sa kuuta ngi jub sa kët bañ xëyee rek sama maam génn ci suna si rek gis mu sotte soppeeku sàpp mu ñëw nuyu ko ne ko bële mu ne ko ndaw mu ne ko ñaam sàpp mu ne ko luy lool mu ne ko lekkal sàpp mu ne ko lu xew mu ne ko su suna sa soppeeku na sàpp noon naa la kuuta ngi jub sa kët moom it mu génn ci <laughs> sunu gannaaw kër gi gis sunu si soppeeku topp mu ci la ñëw nag visite soxna si gis dencam bi mu génne dugub ji séddale leen kenn ku ne jël yóbbu sa kër mu dem uti dugub balaa jeex mu ñëw mu ñu ñu bokk lekk léegi nag bi ñu demee ba sàpp boobu di meññi am lu fay du am bu ko waree rek gis lu ci yàqu benn bis nag mu wax maam kon bañ a ne ko nañ ànd nga wërale ma suma sàpp bi ndax daal am na lu ci yàq te defe naa guddi la ko yàq bu ñu demee di wër di wër ba mu yàgg. mu mu jub benn rab booba mag ñi kundoog lañ koy wax tey ñun ñu di ko wax lëg li tax ñuy wax ne ndaw kundaa du laal du lekk lëg ci foofu la faaxee ko mu mu jub rab yi mu mu dawut ko mu mu ñëw téye ko mu soppee ko xale lu góor mu waxee ko xëywu ko moo suma maam mu ñëw mu ne ko lii de bi ma koy gis rab la waaye bi ma ko téyee nit la te waxee naa ko xëyul ma dama koy rey mu ne ko bu ko rey mu ne ko nuñ koy def mu ne ko nuñ ko yóbbu kër ga ñu demee ñu tëj ko ci sa wanago bu guddi gi seddee man danaa ñëw wax ak moom su ma xëyeew danaa wax ak moom su ma xëyewul nag nuñ koy dem ñu sokk koo dem ñu indi ko tëj ko ci wanag wi ba guddi gi seddee maam Kor Mbañe ñëw ubbi ko néew ne ko de sama euh, euh, mbindeef mi de yaa ngi bëgg a jommal ndax sama sang bi nee na rab la gisoon te nit la te ñu ngi lay waxee wóor la ma bëgg la laaj nag nga wax ak man mu ne ko waaw man de dama ñib si ci yéen ci yéen laa bokk mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko noo tudd mu ne ko maxa mu ne ko suma sang bi dafa am na tub jabar soxna su mu am ñaare bu taawloo ak moom rek mu fàddu wala mu tàggoog moom léegi nag loolu lu ci pexe mu ne ko waaw léegi na seet dëkku xamtu yi ci réew mi dëkku xamtoo dëkku xamtu rek mu ñaani fa soxna bu ñëwee da dana dana jaboot te fi toog te dana barke dana am yu soxna su muy ñaani la mu fay dana ànd ak ñu xam ne man bu ñëwee ci ñooña laay am jabar booba nag la taaguj waal di takk bëlëb gal mañ sa nag di takk di takk rek nag bi mu demee gaabu nag jël fa mbiri subel ñëw euh, mu toog mu am moom njaboot mu dellooti fa jëli jëli njaay mu doon njaay mu doon moomu ba mu koy indi nag jaami jigéen ñu ko baayam boo baayam toon pour ñu jàppale ko ci sëy ba ñëwee ca lañ may maxa soxna léegi nag moom taaguj waal moomu njawañ uh, uh, bëlëb galmañ sa moomu looloo waral mu bari taaw maanaam nag mu jël janjooli njaay nag am ak moom biram parti janjooli biram parti janjooli moomu moo jut xantu xantu jut ndeene ndeene jut helimaan helimaan jut ma kumba sebet ak demba kumba sébét ku ci nekk baax na barkan ma kumba sébét moo jut musa xawa ndaw ak biraan xawa ndaw ak xantu xawa ndaw ak ma njéeme ak xantu njéeme ak Mahadam Jale ak Samba jële ak Omar Lobe ak Birane Lobe ak Makumba Seck ku ci nekk baax na barke na Demba Kumba Sewet ak Laayen jama sele ak ak Kubay ak Abdou Wadam ak ku ci nekk baax na barke na moom moom euh, Biram Paati Janjoli moomu amoon na juróom-ñaari xàmbi ngalami tooke yoo xam ne bu amee semaine xarewul dafay sangu ci yëpp ngir bëgg a xare moom nag nga xam ne mooy caatam demba kumba sébét ma kumba sébét moom ma kumba sekk bi muy juddu dafa fekk baayam ma kumba sébét genn àdduna mu juddu ñu tuddee ku ko yaayam tudd kumba sekk moom maamam kumba tudd kumba sébét ma kumba sekk moomu nag moo jur Abdou Paan ak madun jama moo jur xay sa sën ak mbaaxe sën ku ci nekk baax na barke moom moom moom de ma Makumba Sekk moomu Abdou Paan mi nga xam ne mooy mooy doomam bu góor ñaari soxna la raame la raame ndoor ci benn bis benn yoor yoor parce que yàlla daf ko boole moom sëriñ la woon waaye yàlla daf ko boole woon ak buur yi maamu ndëri ba ci ñooro xaritam la woon biñ toogee ba mu xam ne war na denc soxna dafa toog benn at mu ne ko laay bamba mu ne ko naam mu ne ko te ren de mënoo ñàkk a wut soxna nañ seet ci mbokk yi ñu dimbalante nga takk soxna yàlla def mu dem ñu may ko xàcce jaara bañ ko ko mayee mu ngoro ba bëgg a jël ñu ne ko fa tuuti kii matut a jébbale mu mu ne ah ñu ne waaw mu ne ko ah ci la ko euh, maamu ndëri dellooti na ko nañ seetaat keneen de yow doo mën a ñàkkaa nawetoo soxna de ñu dem seeti Halima gay ñu ngoro ko waxtaan ak ay gorom ñu nangu leen a jébbal ñoom ñoom ñoom ñu ñu ñu ñu pare pour jël ba ñee déggee ne euh, day kee ñee goro yële dañuy jébbal kee euh, dañ koy jébbal ñoom it ñu waaj ne ko mbaaraan mbaa ñaari mbaar ñuy dañ la jébbal léegi nag ki la ñaari seet yi wàcc ndoor ci benn yor-yor. moom bi mu bi mu amee xàcc jaara am ak moom mamat xar ak fëri xàcc jël xalima gay xam ak moom xamat ak saadi xalima ak satan xalima ku ci nekk baax na barke mu jël xorja am ak moom xomar xorja ak baaba xorja ak xamin xorja ak sekk xorja ak soxna xorja ku ci nekk baax na barke mu jël faatu xam ak moom alliw faatu ak mamat faatu ak Moussa Faatu ak Paan Faatu ak Yaasin Faatu ku ci nekk baax na barke na Faatu mooy bàyyi alaaji Jamilu Ndaw ak aji Faatu Mori Ndaw mi yaay As Ndaw ak alaaji eh, Abdourahman Ndaw ma Dakar moom Moussa Faatu moom itam ay njabootangi fii Aliou Faatu njabootam ñu nga toorooto li tax ma lay wax ne mm, ah, maanaam xaysa seen ak mbaaxe xaysa moo jut demba ña mu jut xàttaña mu jut alaaji demba muy bàyyi as ndaw xam nga ah, ku baax mooy am lu baax ndax exemple bi ma lay jox as ndaw mu ngi juddoo tooroodo kere bi mu juddoo bi mu jooyee maamam bi bokk ak maamam bi jur yaayam ndey ak baay ñu koy wax Moussa dafa tekki li jooy te booba xam nga loolu lu réy la kii xam lu liir jooy nga di ko wax te loola du wut lu ñuy weer waaye euh, ka xamoon la mu wax lépp leer na tey kon damay wax ni euh, juddu gën ñépp yombut waaye fi nga toll bu la fi kenn gënut doy na ndomb ak tànk te mbaax dañ koo donn mbon dañ koy sañ te it maanaam doomu mbër ak wàll yi mën nañ koy siyaare nag ngir màqaamam baayam waaye màqaamam mi am nag bay jiite mbooloo nag moo koy sàkkul boppam ndax keroog bi ko nijaayam ne nikk ci loxoom ñu waajal ko mu jëm kokki nee na dafa toog ba mu yàgg bi ñuy teeru oto amaguñ muy muy jàdd di di di di am lu muy def mu ne ko aas mbaadu ngay daw mu ne ko man mu ne ko ah mu ne ko man du ma daw mukk te su ma demee kokki du ma ñib si saalum mukk te moo ko tariwuma alxuraan kon nit maanaam yal na yàlla dolli jàmm la yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole moom aas ndaw lu mu baax rek doyut maa moom Abdou Mbombe mi jur ah, a bi mu bi bi muy dund ca mbëlbug di dund di dund di dund boobu mbëlbug nekk na juróom-ñaari pénc dëkk bu nekk juróom-ñaari pénc neexut a seere te yàlla ñetti waay yi la am waaye jii ñëpp xam nañ ne waa yàlla la jeneen ji moom moo xam ak yàlla mais nit ñi xamuñ jeneen ji moom yàlla rekk xam ne kii suma waay la waaye moom sa xamu ne waa yàlla la te dafa am benn kilifa mu noon ma Babacar ma ne ko am ah, mu ne ma ñett duñ jëriñ seen i mbokk ma ne ko banag ak ban mu ne ma nitu yàlla du jëriñ mbokkam ma ne ko waaw mu ne ma buur du jëriñ mbokkam ma ne ko waaw mu ne ma ma ne mu ne ma jongama du jëriñ mbokkam ma ne ko lu tax nitu yàlla du jëriñ mbokkam mu ne ma du ko gëm te nit ku ko gëmoon laa jëriñ ma ne ko buur mu ne ma dag ba lay jëriñ te mbokk ma du ko daggu ma ne ko jongama mu ne ma taar ba lay jaay te mbokk ma du ko jënd bi mu waxee ne dëkk bi eh, nañ booba dëkk bi dañuy làmb mu xaaye leen ne leen bu leen fi tëggati làmb ñu wax ne góor gi mënut leen a tere làmb biñ ko bi bi biñ ko téyee moom mu génn toxu ñëw mbéntënki wala saaña ba mu fa ñëwee nag dëkk ba yëpp toxu dëkk ba gent ah góor gi de toxu na ñëpp toxu ba mu toogee di dund ba xam ne li ko dese bëreetut mu waxtaan ak nit ñi ne leen njaboot gi su ma fi génnee àdduna yóbbu leen ma rombal bu dëkk ba dana dekki suñ demee ba jamono jumaa jii maam yi tabaxoon fi danañ ko toj tabaxaat ko ki koy toj tabaxaat ko ci man lay bokk suñ demee ba jamono danaa feeñ te ci suma doomi jigéen yi laay feeñ te loola lépp ñi ko xam leer na leen aas moo toj jumaa ji tabaxaat ko bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu wa ala wa man wala bokki julli ñi ñëw leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen dalal fii ci daara alxaaji Jamilu Ndaw ci Kaffrine te comme niñ ko waxee suñu benn mbokk bi bu yàlla baaxee amal lu mel nii ci barab bi waaye di nayu ñu nga xam ne ñoom lañu bokkal jataay bi di jiital Oustaz Babacar Mbaye ñu gën ko xam ci Mbaye Dramé di ab jàngalekat ab yarkat inay wut si ñu mbokk Babacar Samb nga xam ne moom itam macha allah e, bu ñu dëkkee mën nañuy wax ne yàggut waaye gis gisuñu ku ko gën a bëgg jaamu yàlla ndax jàkk ji ñu dëkkee ci koñ bi ñoo xam ne ni moo ci man ñu koy ñaanal yàlla fan gudd gaande wér di santit yi taal ngol ngol e, yàgg nañ laa dégg xëy na tey la yàlla dogal jotaay bi waaye ñu ngi lay siifur ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yaa ngi koy dénoncé toujours pour ne nañ jàppale ñi ñu diina ñi yëngatu ci diina ak rawatina ay ndongo daara waaye di sant ñëpp ñu ñuy seetaan rek eh, di leen wax ne daara ji Kaffrine ñu ngi sant yàlla bu baax at la ñuy doog a amaale ñu ngi yor itam lu toll ci deux cent vingt cinq élèves yoo xam ne kenn du génn dem fenn. te loolu yëpp seen lekk seen naan seen cet yëpp sëriñ Alaaji As moo ko gàddu ne da koy jéem a jàmmoo yàlla suñu borom waaye mu tëddee noo xamit ne eh, Oustaz Babacar mu ngi koy junj léegi eh, jàngukaay ku ne jàngalekaay ne yarukaay ndax nit bu fekkee ne dafa jàng te àndut ak yar daanaka xam-xam ba la muy jëriñ du bari ndax nee nañ mën nañ laa fekk ak sa alal ñi dóor la. wala ñu fekk la ak sa dara ja ñi dóor la waaye kenn du la fekk ak sa ab yar di la ca di la dóor kon loolu ñu ngi koy sant yàlla xam ne comme ni ko Alaaji As waxee rek fii benn la jàngu la ci kokki ndax sëriñ bi sant kokki yàlla na ko yàlla yërëm te nga xam ne ca lañ jàngi woon ñun ñëpp lam doon ñaan yàlla mooy dem ba dong yi nga xam ne ñoo jàngi woon fii tibbee fi aw xal dem taali feneen jàngale ngir alxuraan ji mën a yokk te jàpp naa ne ku ñëw fii da nga xam ne loolu rek moo fi am tëddee na it ci noo xam ne ñëpp la ñu yemale dañ ne jàngukaay waruñ koo féetale ba mu nekk ci benn boor rek jàngukaay moom jàngukaay la tudd moo tax boo ñëwee fii alay taal comme ni nga gisee danga fi fekk saal boo xam ne ñu ngi ko tuddee alaaji Ahmed Sakhir loo waaye danga fi fekk beneen saal boo xam ne ñu ngi ko tuddee Serigne Saliou Mbacke te loolu daa am lu muy jàngale ay leçons yu rëy yoo xam ne moom lay jàngal julli ñi ñi bañ a jël rek mbir yi di ko féetale ci benn barab parce que mag ñi loolu bàyyiwutoon leen fi li leen fi bàyyi mooy dañoon bokkoon ab tool boo xam ne kenn ku nekk taxaw ci koñ di bay waaye boo rombee sa morom na ko jaajëf boo rombee ci toolu jamono boo fa gisee ñax gu war a mën a yàq nga mën ko buddi loolu mooy ànd defar xàmmewuñ fi ab murit xàmmewuñ fi ab tijaan xàmmewuñ ab laayen ñëpp rek ñoo bokk nekk benn li ñuy jàngale ak déedéet am na beneen saal boo xam ne ñu ngi ko mu ngi ko tuddee xaritam mi ñuy wax Mbaye Touré El Hadj Mbaye am na beneen saal boo xam ne ñu ngi ko tuddee Serigne Abdoulaye Dia di wóllëreem ku ne it xam ne li muy yëngatu ci wàllu alxuraan. comme ci la ñuy tënk nga xam ne daal lim ko sampee daal mooy fexe boroo ci mag ñu baax ñi waaye di gërëm ñëpp di sant ñëpp comme ni nga xam ne ñu jiitu waxee nañ ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa mbokk yi nag gis ngeen kon euh, seen émission penc réew mi ci dara ju mag ji. Eh, may eh, dellu rek di lancer appel ci ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci réew mi te yàlla dogal bi ñuy gottu tànk ñu yóbbu leen ci dara jàngal leen yar leen tarbiya leen ñoom ñépp ku ko ci man nga jéem di def nii nga xam ni moom la as ndaw def ndax eh, léegi àdduna bi yegg na foo xamante ni jàpp naa ni daara mën na moderne ba dem sax ba am ay métier ci biir dem ba ku fi génne sax doo soxlaa jaaraat feneen sax pour tekki lépp mën na fi am kon nag képp kuy sénégalais te yàlla may la wërsëg te nga jaar ci daara ak nga ñàkk jaar ci daara waaye nga dib jullit rek wa parce que njàng mi tant que njàng mi yëkkati wunu ko jàpp ma ni Sénégal dina dox njàngum tubaab du ñu yóbbu fenn ni développement ni civilisation njàngum tubaab moom daf ñuy gën a réeral te yéen ñëpp constaté ngeen ni. depuis dix-huitième siècle ba léegi doo ngi jàng ay tubaab ba te ba tey li tubaab bi man mënuñu si dara nun daal li nu li tubaab bi jàngal mooy aw lakk ak culture am ak i maamam fexe na sax ba ñun fàtte nañ suñu yos kon nag yooyu defe naa dekkal daara moo koy def te état du Sénégal na xam ni budget bu Sénégal du pour ñiy jàng tubaab rek ñiy jàng tubaab dañ leen di tabaxal ay école dañ leen di fay ay salaire dañ leen di jox sax indemnité de logement mais kiy jàngale alxuraan amul ñaari téeméer ci biir boobu da ngeen ni quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ñoo ko bokk loolu lu mu tekki injustice loolu teguwul fenn te wóor na ma ni bu ñu defaree daara yi dekkal ko nii as def daara ji nga xam ni xale bi d'abord day lekk ba regg te du yalwaan xale bi lekkalul kenn ci mbedd mi xale bi aussi bu fi génnee dina fi génnaale ab yar parce que jàng wu àndut ko bu yar ab dof ngay fabriqué loolu yépp amu fi kon nag état du Sénégal maa ngi lancé appel au président de la république Macky Sall jàppaleel njàngum alxuraan ndax 95 pour cent de musulmans nga jiite jiite woo ñeneen kon nag but ci réew mi na ci alxuraan bokk bu ko bu ci mënta ëppale sax parce que loolu mooy yoon kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm El Hadji Ndaw mi nga xam ni El wilaan Wilane El Hadji Wilane dama juum El Hadji mi nga xam ne mooy directeur u daara ji di imam bi aussi kon nag ñoo ngi ñaan buñ fiy dellu siwaat yàlla nañ fi fekk ay kaang yu bari kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanila jërë ngeen jëf